kuy décider amul lu muy décider. DG fii daan na amul lu parce que xam nga sa décision euh, avec ses arguments. gi génn décision génn ordonnance bi. Hmm. Ousmane Sonko nañ ko radier des listes c'est pas légal on doit le réintégrer au niveau des listes. E, mu def loolu mu ni non du ma ko radier du ma ko réintégrer parce que l'État dafa introduire benn pourvoi léegi damay xaar résultat wu pourvoi boobu mais DGE nañu wax sur la base de quel texte juridique la appuyé wu. Hmm. pour ni su état bi introduire pouvoir moom dafa am obligation xaar amul. parce que euh, en matière euh, électorale en matière c'est on est dans la matière administrative. administrative le le recours n'est pas suspensif. c'est à dire que quand le juge prend son soo demee article 74 daa ko gis de la loi organique sur la Cour suprême euh, quand le juge prend son ordonnance boobu da nga koy exécuter. c'est pas suspensif c'est pas suspensif. léegi wax nañu ay exceptions yan cas. quatre exceptions rek la waaw benn exception mooy en matière euh, d'extradition. Mhm. en matière euh, d'expulsion d'un étranger. en matière euh, de déclaration d'utilité publique. Mhm. ak en matière de de de de d'élection sur les à part quatre yooyu amul que en matière d'inscription sur les listes électorales koy inscrire. mais nag xam nga problème bi mooy man DG je dem na sax est-ce euh, xam nañ bu baax la def quoi parce que Ousmane Sonko nga réinscrire ko sur les listes électorales jox ko fiche de parrainage mais dafa tax mu nekk candidat. non non ah, voilà. <laughs> mooy décider loolu. conseil constitutionnel mooy jox ko fiche de parrainage mu am 100000 parrains dafa tax mu nekk candidat. taxul. c'est c'est pire que ridicule quoi. c'est-à-dire on se bat pour rien. pour des détails pour des détails ñoom tey jii ni ñu ni ñu ñëw siiwale seen bopp se parce que tey Ousmane Sonko jox ko fiche de parrainage mu dem wuti parrainage mu am mu am le nombre de parrain requis. un bu demee conseil constitutionnel conseil constitutionnel remarqué ni il ne remplit pas les critères pour être candidat à l'élection présidentielle du dem. oui mais parrainage bi c'est c'est une condition nécessaire mais c'est pas suffisant pour être candidat à l'élection présidentielle. Mm-hmm. kon euh, DGE doole boobu mu am subitement moo leen jaaxal et pourtant en deux mille vingt deux en deux mille vingt deux DGE. octroyé nañ ko le pouvoir d'invalider la liste des titulaires de la coalition Yewwi Askan Wi gis man décision boobu jox nañ ko DG DG def ko conseil constitutionnel validé ko mais man ce qui m'étonne mooy euh, cette décision ça me fait rire quoi parce que gis nga euh, ni ñu scindé la liste des deux la liste xëy na tey jii da ngeen ma ni on revient sur du passé mm-hmm. mais liste titulaire liste suppléant nan ngay invalider liste ah. quand la liste des titulaires est invalide c'est la liste des titulaires et des suppléants qui est invalide quand la liste des suppléants est c'est la liste des titulaires et des suppléants qui est invalide genn wàll gi mënul valide beneen genn wàll gi invalide amul amul soit da ngay valider bi dans son entièreté soit da ngay invalider liste bi dans son entièreté maintenant nag DG c'est vrai que tey jii mi ngi ñoo tàmmal ay déci xam ne kenn xamul fu mu mais bii moom bii bu mujj bii moom ça frise vraiment le ridicule et puis li graaw mooy daf ñuy mettre tous en danger quoi en fait gis nga décision de justice kenn du ko fowe te l'état n'est pas à son coup d'essai gis nga am na yoo xam dañ koy fàtte wala duñ si kii gis nga en deux mille quatre quinze ou seize l'affaire des élèves maîtres oui <laughs> avec Serigne Mbaye Thiam. Serigne Mbaye Thiam toog ni décision ñoom décision de justice. d'accord mu ne décision bi du ma ko appliquer. Cour suprême. Cour bi du ko appliquer. mais c'est-à-dire c'était tellement scandaleux te scandalisé wul personne man loolu moo ma jaaxal non pire assemblée nationale ñoo voté ko motion de soutien. mais xam nga xam nga justice suñ koy foowee nous sommes tous en danger. Mm-hmm. parce que en réalité justice que ça soit nga nekk du côté du pouvoir de l'opposition nga nekk euh, une entité euh, une entité physique une entité morale mm. justice mooy sunu rempart c'est le dernier rempart vraiment contre l'arbitraire yow tey ji su fekkee ne su ma la tooñee mënoo ma yóbbu justice wala soo ma yóbbu justice léegi dañuy xool ndax décision bi dañ koy appliqué duñ ñu état su fekkee ne man su ma tooñee état bi état bi su ma yóbboo am dëgg man su ko yóbboo du ma am dëgg wala su ma amee dëgg état bi du ko appliqué mais xoolal loolu fu muy mujjee mais tey ji Sénégal si situation boobu la nekk décision oui. mais aussi ah ba tey DGE nekkul dama koy faral nag mais bu ñu nee ah on ne pas électeur on n'est pas éligible

ok leen jox fiche de parrainage ñu dem dem dem ba ak conseil constitutionnel conseil constitutionnel yéen mënu leen nekk candidat mm-hmm. loolu mooy la procédure normale mm-hmm. normal c'est ça la procédure parce que mm-hmm. conseil constitutionnel c'est le juge de l'élection présidentielle des candidats de la candidature ak du résultat élection présidentielle moom moom moo si am une voix décisive ñi si des ñëpp yéen seen liggéey si administratif recevoir leen dossiers yi nit si ñëwee jox leen ko dossier na dem na remplir na ñëw man su ma ñëwee si accès si man c'est à moi d'apprécier point c'est ça